Rayane Diouf laa tudd maa yaayi Ndiaye doom ju ma gërëm la doom ju baax ci man doom ju ma iir gannaaw yàlla yonent bi doom ju baaxoon ci man ma koy ñaanal yàlla fu mu tëdd yàlla oyof yàlla suuf sedd ci kawam waaw. li may fàttaliku ci moom mooy bégal gi ma daan bégal rek su ñëwee bu jëm ci buntu kër gi day fecc mu ngi xool sama kanam ndax am naa lu ma naqari. da xam ne am naa lu ko ma neex su day fecc fecc ma kontaan ma ree mu soog a bu ñëw day yurndoo ba xam ndax ree naa wala ma bëggoon maa bégal lool nag bëggoon maa bégal lool bëggoon maa yàlla bégal fa mu ne mm-hmm. dëgg yàlla sikku ma ko de waaw na nag sonoon na nag waaye nag yàlla moo ñëw nit nit uh, sonn na sonn boo nit bañ naa sonn dee nit sonn dee mais sa yàlla bu ñëwee kenn mënu ci dara lu métti métti métti métti ba yàlla ne woon day wér day wér ba romb ma fi waaye nag saa borom moo tuddee nii yàlla moo tuddee nii waaw yàlla suuf sedd ko woon dëgg yàlla ku baax la man ba xamee baaxul soxnaa mooy bi sama doom boppee ci laa xam ne kii ku bëgg sama doom la ku bëgg sama doom la ku mën a sagal sama doom la wax dëgg yàlla bëggul dara lu ko métti bëggul dara lu ko naqari marut xiifut. man mi ndeyam si jotuma ci moom jotuma ci moom benn yoon aw kay dama koy ñaanal yàlla jabootam yàlla na ci yàlla teg loxo ci daraja yonent bi awa nit ku baax la démb ba tey ñoo Futurs Médias bu ba tey ñoo moom dawuñ benn yoon daawuñ benn yoon bëgg sama doom ji rawatina bu ma duura njaga ak kacales ak maam Cheikh Diallo xam man daa mënu maa lim daal su ma limee damay juum waaye daal Futurs Médias ñëpp gërëm naa leen sant naa leen mënu mën a fay mënu mën a fay yal na leen yàlla fayal boppam waaye sant naa jabaram de sant naa ko baax sant naa ko yaay booy mas mas mas حبيبي قريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا